waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, bokki bokki eh, bokki taalibe yi bokki taalibe yi maa ngi dégg ay yëngutu ci dëkk bi yoo xam ne yu ma jóge kaw la ah, lu mën a xew daal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 bu leen bu ngeen bëggee jariñu tey ëllëg ku ci bëggul jariñ jariñu tey ëllëg nag yaa xam waaye ku bëgg tey jariñu tey ak ëllëg nag xool ci man na ñëpp dal da ngeen dellu ca kër ya ne tekk déglu ndigal ba xam lu waral lii ndax defe naa mos fee am